salaamaaleykum nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude te képp koo xam ne nii abonné ko ci chaîne bu ñu def lu dul wax la nga abonné activer cloche bu ko defee benn suñu vidéo dootu la rawati mais surtout ngeen di liker di commenter que partager xibaar gi dañuy wax ci match bi doxoon na diggante euh, Liverpool ancien club bu Sadio Mané actuel club bu Mohamed Salah ak Firmino du doon football euh, match Premier League neuvième journée mook Arsenal l'équipe en forme moom mi nga xam ne actuellement mooy leader euh, ci. Euh, prime league bi euh, nekk ci kaw ki ñu naan euh, Manchester City Arsenal rek jamono ji mën naa ni ñu bett ñu bëri la bett ci saison ren bi malgré amul effectif bu rëy rëy bi nga xam ne City am na ko man yoog ñaari effectif boo xam ne nii vraiment ñu ko doon xaar ci moom amu ko waaye taxul Arsenal mu ngi wane loo xam ne nii dal na xel te bett na ñu bëri ci prime league bi ni mu ko débuté mën naa ni sax raweegum na lu mat 14 points ki ñu naan Liverpool ci début saison bi ne jot na ko dóor tey jii mu doon match boo xam ne nii euh, match bu neex la ci ambiance ci rythme ci football lépp euh, mën naa ne situation yi ñu doon inversé wo euh, da ngay dem ba vraiment doo bëgg sax match bi jeex ñu gis ne ne kiñ naan Arsenal moom moo njëkk mën a 1 bi à 0 Liverpool égalisé Arsenal fekkat ko fa gis nañ ne Martinelli def un excellent match de même que Saka ci phase offensive bi gis nañ Martinelli mu doon joueur boo xam ne nii mën naa ni 90 minutes yëpp dafa joxe carrément Saka naani penalti bi ànd ak sang-froid xale bu ndaw teg ko ci côté Odegaard doon xale bu ndaw waaye ku am avenir ñu takkal ko capitaine mu diriger équipe bi Chaka gunge leen en tant que euh, grand frère Saliba euh, ci axe central axe central bi euh, gën a yokk niveau am ñëw Premier League ñu bari foog ne ne niveau bi nga xam ne moom la yoroon France mais da koo gën a yokk carrément ñu gis benn Arsenal boo xam ne ni jamono ji dañoo mature seen équipe bi nag mën naa ne ay attaques yi ñooy àndi football c'est normal niveau nga xam ne toll nañ ko nii ñu mu bett ni ñu doon évoluer maturité rek moo leen mankoon te jamono ji ah, ñu ngi ko am bu baax a baax Gabriel Jesus malgré sax euh, dugalul waaye mu ngi ci yoon boo xam ne ni vraiment euh, mu ngi joxe euh, fulla ak de di jaayante ci attaque bi ngir lan ndamub Arsenal gis nañ ne côté Liverpool nag défense bi c'est un peu défiant euh, que Van Dijk Matip moom mi nga xam ne premier temps bi moom dafa mujjee génn sax euh, dañoo ay ay dañoo am ay erreurs yoo xam ne ñu ngi koy def seen biir vraiment bu continuer nii mën naa ni euh, mën nañoo dem sax ci bas tableau bi te loolu moom jigut Liverpool mu doonoon club bu mag fële ca Premier League gis nañ ne trois buts yëpp mën naa ni Tsimikas tamit seen latéral gauche bi bali ci bëri dafay jaar doon loo xam ne ni lu bëri lu war Jürgen war a réparer ci club euh, euh, Liverpool bi Arsenal moom it seen défense bi euh, parfois Gabriel la si je ne me le brésilien la tey def ay erreur yoo xam ne nii bu kooyee du baax ci Arsenal dinay dugal waaye li muy encaissé dafa nar a bëri loolu nag faa mu bàyyi ci. noonu nag Arsenal dóoru kii ñu naan Manchester City par la marque de deux euh, trois buts mën naa ni demoon nañ ba deux deux ba temps bi di waaj a jeex euh, ki ñu naan Arsenal dugal troisième bi bi nga xam ne euh, mën naa ni moo ko permettre mu gagné ki ñu naan Liverpool ci saison bi nag Liverpool amagum na de défaites mu doon loo xam ne ni daaw deux défaites képp la am ci saison bi yëpp yëpp yëpp mën naa ni Liverpool ci début saison bi deux défaites la am mu doon loo xam ne ni daal jaaxal na képp ku amateur de foot Arsenal am na huit victoire mu doon loo xam ne tamit euh, baax na ci moom tey it dina ko mën a permettre mu mën a Euh, espérer jël lii di Premier League ay année ci ginnaaw nga xam ne gëjoon na ko jël euh, jamono ji daal le football a changé comme ni ko Kylian Mbappé waxee Arsenal mu ngi ci yoon boo xam ne nii euh, vraiment bu dakkut war na mën a yegg fu sore sori fële ca Premier League gars yi loolu moo nekkoon xibaar gi leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee ngeen kon ne di abonné chaîne bi activé ko ci ñu ko defagul mais surtout ngeen di liker di commenter ko partager ba beneen yoon ci yeneen xibaar.